président Macky Sall bi nga xam ne dafa am un programme ambitieux pour que Macky Sall mën a gagner yii di ñëw ci dès le premier tour. loolu nag bon ñun dañoo commencé à travers notre propre nos parce que depuis pratiquement depuis le début des vacances dañ commencé woon di def ce qu'on appelle des mercredis marrons mercredi bu jot ñu dem ci benn quartier wax ak ndaw ñi wax ak jigéen ñi wax ak góor ñi expliquer leen la mooy PSE wax leen kat ni PSE jamais. programme musta am bu mel ni comme PSE te je pense que sénégalais yi wala jeunes yeeg ndaw ñi bis bu ñu demee ba maîtriser PSE gëm naa ni Macky Sall dina remporter élection yi di ñëw à 99 pour na kàddu boobu yëkkati jëmale ko ci responsable affaire yi waaw ñi ñaan que responsable yi nekk fii yëpp ñu doon benn ñu ànd doon benn tey yàlla fi yàlla def mooy monsieur le maire Diagne Mbengue moo nekk maire mais ñun ñu tàllaloo ko képp kuy jeune que ce soit nga nekk étudiant. ka nga nekk artisan ka nga nekk baykat ak loo mënti doon rek nga ànd ak ñun ñu liggéey pour que Tivaouane jëm sa kanam Tivaouane jëm sa kanam mooy ñu ànd ak président de la république ndax ku xam ni tey Tivaouane tey nu mel nii xam nañ bu baax que président dara la dugal ci loxoom nit ki nag bu fekkee ni am nga président boo xam ni mi ngi lay jàppale bu baax yaakaar naa ni bu soxlaa aussi war nga ko mën a jàppale moo tax ñu ndaw mi tey ñu daje woon fi tey di lancer suñu cérémonie mais aussi di waxtaan ak ñëpp dina expliquer nañ jàppale Macky Sall pour que président de la République gagne élection yi di ñëw à 99 pour cent daf ñu wóor ni que à Tivaouane ak li président def ci dëkk bi gëm nañ ni moom lu leer ba leer nit élection yi di ñëw dinañ ko gagne à 99 pour cent loolu moom lu ñu wóor la. ni ngeen ko waxee étudiants ak élèves Tivaouane yi ñoom ñoo dajaloo ci benn collectif bi ñuy woowee collectif des élèves et étudiants républicains pour un Tivaouane émergent et solidaire. Tivaouane émergent et solidaire parce que comme ni ñu koy waxee émergence bu amee te nit ñi dimbalante wuñ si seen biir tamit xëy na mbir yi ni mu war a demee du demee noonu moo tax bu ñu toogee waxtaan ñu ni nañ ci yekk yokk solidaire ngeen may ma rek si ma féliciter les étudiants de dakaar de Saint-Louis de Thiès de Ziguinchor de Bambey si jaarale ko si seen coordonnateur bi di Cheikh Abdoul Dia ñoom si seen bopp bi ñu toogee décider ni ñun gis nañ ni. président de la république gis-gis bi mu am ci Sénégal doy nañu action yi nga xamante nii mi ngi koy mënee à travers le PSE si PUDC ak gis-gis bi mu am si acte trois de la décentralisation doy nañu ba ñun nag dañoo décider ñëw jàppale ko ci wàllu politique am ñun nag dañuy liggéey ak euh, autorité politique yi nekk ci Tivaouane yëpp wante tey jii man am na sagu na trop ci man bi ñu jógee ni ñun kat suñu moom maire Mamadou Diagne Sy Mbengue ñun moom la ñu tànn pour def ko mu nekk parrain collectif yooyu nga xamante ni créé nañ ko un peu partout euh, à travers les universités sénégalaises li leen tax a jóg nag mooy li nga xam ni liggéey bi président sumb dañu commencé si gis ay résultat ci biir Sénégal gi yëpp waaye bu ñu soriwul xool ci biir Tivaouane gis ni Tivaouane depuis président de la république ñëwee ak tey jii lu baree baree bari soppeeku na fi infrastructure yu baree bari yoo xamante ni amu fi woon commencé na di fi am la maison des hôtes wax nañ ko 17 kilomètres de route l'éclairage public nga xam ni tey ji les anciens villages te nekk ay quartiers tey jii am na ñoo xam ni commencé nañ leen éclairer adduction d'eau bi am na lu baree baree nga xam ni ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ciy def li nga xamante ni mooy daral bi tey jii ñu ngi koy toxal def 16 hectares yoo xamante ni dañ koy aménager def fa forage tabax fay abattoir à terme yooyu yëpp buñ ko boolee ak li nga xamante ni municipalité mi ngi koy fiy def muy mairie Tivaouane projet yi nekk si ñu kanam nekk gare routière bi ñu beesalaat ko yaatalaat ko tabax benn centre boo xam jeunes yi ñoo ko moom ci loo xam ne toll na si juróomi téeméeri millions ak juróom fukk 550 millions mu fekk si. case des tout petits bi nga xamante nii aussi ñi ngi ko fiy tabax mu fekk si waat le centre socio éducatif bi nga xam ni fi maire bi nekkoon euh, ña ngi ko fay tabax mu fekk si incha allah bu ko yàlla dogalee aménagement place Seydi Hadji Malick place Khalifa Ababacar Sy ak plus tard aménagement place Xalxuus dina nekk loo xamante nii day changer définitivement visage yu Tivaouane loolu may wax nag du ay projet yoo xam dañu nekk di uti ji financement bi projet yoo xamante ni la les appels d'offres ont été lancés maanaam ku gis euh, journaux yi génn ci semaine ba la gis nañ ni lancé nañu appel d'offres pour euh, aménagement agrandissement et modernisation de la gare routière appel d'offres pour le centre socio-éducatif bi nga xamante ni moom la ñuy tabax mais waa ANPEJ aussi lancé nañu appel d'offres pour l'aménagement déplacé Hadji Malick Sy et Khalifa Ababacar nga xam ne maquette bi vraiment bu rafet la boo xam ne ni dañ si boole même effigie kilifa yooyu ba foo toll rek di egsi Tivaouane nga xamante yaa ngi egsi Tivaouane yeneen projet yi moom du lu may wax ni lancé nañu appel d'offre yu tàmbali la hmm? fi ñuy fi ñuy wax maison euh, maison des hôtes bi ci wet gi tey ji président ma ngi fay tabax 75 appartements yoo xamante ne nii bés bu pare dina yokkaat capacité bi nga xamante ne nii les neuf suites présidentielles yi ñu fi jotoon a tabax euh, am na ko ancienne maire bi aussi centre socio éducatif bi ña ngi koy ña ngi koy tabax la préfecture de Tivaouane actuellement nii nekk na en chantier mais ku ne xam na ni sécurité lu am solo la si suñu zone bi ku dem tey ji ci brigade gendarmerie bu Tivaouane fekk nañu rasé nañ ko yaa am projet de 600 millions de francs CFA boo xamante ni nii commencé nañ ko tabaxaat capacité bi dina gën a yokk dinañ gën a am des forces peut-être en réserve ba sécurité ci biir Tivaouane nga xamante ni dañ koy soxla ay événement di fi am jamono yu ne mais aussi lu ñu wër vol de bétail ak yeneen yooyu ñooñu ñëpp dinañ ko mën a fànq ni mu ni mu waree kon daal étudiants yi ñoom ñoo gis ni loolu yëpp président de la république di def ci biir Sénégal rawatina nag ber loxo bi mu beral loxo Tiwaawan ñoom nag jaadootul ñuy toog di ko seetaan dañuy jóg jàppale ko jàppale boo xamante ni jàppale bu dëggu lay doon jàppale bu wër lay doon ñu ànd ko ak kilifa Tiwaawan yi nag waaye nag mi tànn ma def ma seen parrain mu nekk loo xamante ni man itamay engagé wu ci seen côté lépp loo xamante ni président mi ngi ko yëkkati pour jëmale Sénégal kanam ñu mën ci ànd ak ñoom.